saboor saa benn ñaari yoon a ngi ndoklee yow mi toppul tànkiku bon taxawewuloo yoonu mooy kat toogewuloo jotaayu ñaawlekat xanaa di bége yoonu aji sax ji di ko jàngat guddeeg bëccëg loo def mu antu nga mel ni garab gu saxe ndox bu jotee meññ te xob wa du lax loolu dalul moos ku bon kay mel ni xatax bu ngelaw li wal moo tax ku bon du siggee àtte ba mooy kat du taxawee ndajem aji jub ña aji sax ji kayay sàmm yoonu aji jub yoonu ku bon di sànk boroom saboor saar ñaar yàlla fal na buur ana lu xeeti àddina di riir lu giir yi nas pexey neen buuri àddinaa ngi dér borom nguur yi daje di fexeel aji sax ji mook ki mu fal ña nga naan nanu dagg càllala yi sànni jéng yi ki ci jalub asamaan a ngay ree borom baa nga leen di kokkali mer ba gëdd leen xadaru tiital leen ne man maa tabb buur fal ko ci Siyon sama tund wu sell buur ne ma biral dogalu aji sax ji moom mi ma ne yaa di sama doom bés ni ki tey maa la jur ñaan ma xeeti àddina ma sédd la ko nga moom ba ca cati àddina yilife leen yetu weñ rajaxe ni njaqal xandeer kon yéen buur yi muus leen kilifay àddina fàggu leen jaamu leen aji sax ji ragal ko di ko bége ba yaram daw su jootal leen doom ji bala moo mer ngeen sànkoo seenu yoon meram day jekki ne jippét may ndokkale ku ko làqoo